góor yi laa bëgg ngir yàlla ngeen waxu góor yi ñu bàyyi di ñu susu bu ñu duggee ci oto yi bon man victime laa parce que loolu yàgg na ma di ma dal maintes fois maintes fois incontable mais mën naa ne am nag trois yi nga xamante ne ñu ngi may traumatisme teg ma traumatisme nga xamante ma koy xalaat sax sama fee normal bu ma amee sama bac c'était en 2013 ma jógee Casamance ñëw fii jamono yooyu xaw ma woon sa liiñu oto yi lan la euh, ma naroon a dem poste euh, Thiaroy ñu ne ma naa jël 69 euh, mu génn ba ci arrêt bi gis 69 comme laajte bi il faut nga laajte benn ñaar yoon nga mun a am confirmation ma dem jël 60 ma jóge fa gi yenn demi pas man ma yéeg ci bis bi comme bis bi fees na ba bëgg a paa bi topp ma daf ma sësu keroog ci bis daf ma sësu ba xaw ma sax may dem mënuma yëngatu mënuma def dara benn maire moo sib action bi mu woo ma sama doom mu ne ma mu ne ma kaay ñu échanger place maire bi jox palaasam man ma jël palaas ma soogal ma pale te kooku boo ko xoolee mënul mënumaa jur mais tamit euh, grand lay li ma zéré vacciné dina may 40 ans boobu jàll na daw mais ñibbisi dugg ci 36 bi tamit dafa fees ba di tuuru ay heure cinq heures yooyu benn xale bu góor ma fekk ko ci biir bi un jour de vendredi maa ngi sol sama yére lof taxaw noonu xale bu góor bi tamit profité waale ci circonstance su oto bi comme bis bi fees na kenn mënul def dara yëngatu comme bis yi lu ñuy yeb rek on on la ko ne daf ma sësu sësu sësu sësu ba wuy ma tubéyam bi yëpp a tooy xeetu béyam bi yëpp a tooy mais bu démb bi nag moo ma gën a traumatisme loolu moo tax may laajte démb ma wàcc jël vingt cinq bi di ñibbi parcelle dama yéeg tat benn ma fekk benn grand toog mu ne ma àndi sa saag ma uuf la may may attiré tamit attention ñun ñi surtout jigéen ñi boo duggee ci otoq la ne jox ma sa saag ma uuf la taxawal foofu te na nga ko catal bët grand bi dama dugg takk mu ne ma jom sa saag ma uuf la ma ne ko merci comme il était gentil bon ku dugg si takk ñëpp bii si maa ngi fees kenn new la andi ma teel moom mu ne la andi ma teel ma ne ko ah am ma jox ko ba pare ma taxaw ci wetam mu ngi noonu toog ci ginnaaw chauffeur bi moom ak benn gel di ko ma jënd ticket ba pare duggal sama wékket ci sama poset bu nekk noonu ci biti ma gis grand bi di teg xale bu jigéen bii loxo te xale bu jigéen mu ngi solo jupe minime dafa doon naloo grand bi di ko raay di ko raay di ko un certain moment xale bu jigéen bi tiit rek mu gis loxo grand bi ci kii mu daal di ko faxas kii fatu ko ba pare mu ay tànkam jël mbuusu bi takk si seen kaw grand bi dafa yoroon sagaado mooy góor yi mu uuf mu teg saagam nii ci podium mu jël sama bos teg ko ci kawam en certain moment la a changé la position de mon sac mu jël saagam bi taxawal ko jël sama bos teg ci ba pare bu kole ko ak saagam di kuur ma gis mu jël loxoom di ko bëgg a duggal ci sama pochette bu ndaw bi bu nekk ci biti fu ma duggal samay weccet muy euh, xaalis gis na ma ma fay dugal xaalisay bii mu bëgg koo génnee ba ma xaaree ba mu commencé tijji mu yëkkati saag bi aj ko si kaw ma continuer taxawu bi parce que bon ba moo gisee mu teg xale bu jigéen bi loxo di genre sama xel foofu la commencé di ñaaw ci moom mais waxuma ma noppi parce que mandu ci ma ñëw taxaw taxaw taxaw bis bi feesu mënumaa yëngatu ganaam bi jël loxoom teg ko ci kaw sag bi xam nga bu ma taxawee ci bis bi sama oom yi ñooy tollu moom fu mu toog loxoom yi mu jël loxoom yi teg ko ci kaw saagam bi te man sama ndigg bi mooy tollu ci mbaggam bi ganaam bi jël loxo bi di ma raay dafa ma raayin première fois je me suis dit erreur la comme bis bi fees na loolu moo tax mu kii mu defaat deuxième fois troisième fois billaay mataar xaw ma lan moo ma téye ma dëkkense ci kawam yuuxu ko foofu bërta bërta ak moom saaga ko ñun ñi laajte lan la ma a ko léeg-léeg lii la def ñëpp commencé di wax ci bis bi jigéen yi di yuuxu fii góor yi ñu naan ma calme ma ne ko nono non man dama jigéen moo xamante ni kuy taxawaalu bugguma moom tamit di ma teg ay loxo de quel droit il a di ma raañ ma ne ko loolu neexuma loolu ma tey il ma wax bu dee moom dafa am lu mu soxla mu dem wuti ko ci biti mais pas moi daraam bi daal dafa rus fu mu toog ñëpp di ko kaañoo ci bis bi dafa rus fu mu toog